mooy di ko ñaanal yàlla yàlla gën ko dëgëral may ko wër mu yàgg fi lool ba nga xam ne fii kilifaam tegoon tànkam te mu jóg ko commencé ko yàlla may ko mu mun ko yeggal yi gën si ay ndam yu bëri lii nag sant yàlla la parce que yombul woon ñëpp wax nañ ko ñëpp xam nañ ne c'était pas évident mais bu ko doxee ba yegg si fii ba ñëwaat kon dañuy sant yàlla bu baax mais mënuñ terminer nag te gërëmuñ son excellence monsieur le président de la république mm-hmm. xalif waxtaan na ak moom bu muy ñëwee aussi bu ko président yëgee ñu jox ko information yi wax nañu ne nañ jël toutes les dispositions nécessaires pour faciliter ko yegsi bi moo tax mu autoriser ko si boppam mu ñëw fii nii aéroport militaire Léopold Sédar Senghor au lieu muy dem aéroport jas mu ñëw aussi mu ne nañ ko jox le salon d'honneur mu nekk fi disposition yëpp yi nga xam ne gouvernement bi waroon na ko jël jël na ko kon dañuy sant yàlla bu baax di wax ne nag message bu sëriñ bi wax am na importance nee na jàmm dafa am solo moom fu mu jógee xam na luy valeur jàmm kon boog ñun ñi nga xam ne nii yàlla may na ñu jàmm nañu fexe jël disposition ba ñu mun a suuxat ba jàmm boobu ñu am fépp fu ñu dem ak épp action boo xam ne mun nañ ko teg wala acte bu ñu teg mu nekk acte boo xam ne buy renforcer jàmm bi la si lu ko président bi wax nee na ko lu li indi problème yu bëri politiciens yi la kon boog ñun politiciens yi yàlla nañu yàlla may xol ak yéene bi nga xam ne bépp action bu ñuy teg rek pour luy gën a dooleel jàmm Sénégal lay doon loolu am na importance. ñu ñu gis ne ñoo ñu ma doon dégg ñu ne euh, xam ndax fii yaa ngi ni ko waxee aéroport militaire la ñëpp ñu ngi wàcc Diass waaye def naa dégg naa yaa dafay effort ba président mën a wàcc ba ba xalifa bi mën a wàcc fii ci ci ci waaw loolu moom président de la république la mooy li may wax rek loolu président de la république la ndaxte xam ngeen ne aéroport militaire. et puis bi bu jógee dox mission bu am importance bi pour Sénégal pour pour Afrique su yegsee fii lii yëpp bu amee facilité yi c'est parce que président moo ko nangu moo ko autorisé moo joxe instruction yi kon moom la ñuy sant rek di ko gërëm ndaxte lépp moom la. en français pour le journal